très ravi de vous retrouver am internet Sénégal média yi am internet Senbuzz maa ngi leen di nuyu bu baax a baax leen ziar di kontaan saa su nekk rek si jàkkaarloo bi ak comme ni ñu leen ko defalee woon démb fii si TFM euh, jëlee leen nga xamante ni moom moo ki nga xamante moom moo adversaire am euh, di di Reug Reug euh, champion bi Reug Reug nuyu naa la. waaw fay naa la. loo nekk. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Yonent bi. di ñaanal sama papa ak sama tante yalla leen yalla xare aljana firdausi di ñaanal sama yaay yalla nak fi yalla baye ci kanam kanam ci barke sayyidina muhammad di nuyu ñepp bu mu limay dal damay joom di nuyu wa ciari geej ak fukki penc ak ñaari waaw rek rek nga entamé li nga xamanteni mom modi euh, combat ak nga xamanteni mom modi guuy gi euh ñu bëggoon xam sa préparation ci combat bi naka la dem waaw ñi ngi préparer and ak mbokk ñi ngi entraîner ni ci war yëpp ñu koy def waaw ñu ngi si daal ñu ngi préparé bu baax a baax ñu ngi ñu ngi préparé bu baax a baax euh, mais tamit est ce que bàyyi nga xel sa adversaire bi nga xamante ni moom nga ko seqal muy guy gi parce que il n'est pas n'importe qui dans l'arène mais champion la bàyyi nañ ci xel bu baax a baax ndax guy gi champion la champion la ñuy bëreel te ñaari ndaanaan moom xëj bu ñu dajee rek ki gën a doon ndaanaan mooy génn waaw ñun nag pare nañ daal si bépp côté waaw di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam si barki seen naa moomet pare nga ci bépp côté dox nga ko tout à l'heure mais tamit souvent dañuy dégg gars yi di wax ni que bu ñuy wax ci état de forme ki nga xamante ne moom moo di Reug Reug euh, dañu gis lu dul Grèce euh, mu mel ni que ki nga xamante ne moom moo di sa adversaire di di Gouye Gui dem na trois fois Amérique est-ce que amul benn longueur d'avance benn longueur d'avance ci li nga xamante ne moom moo di entraînement par rapport ak yow non Gouye Gui Gouye Gui maa ngi moom li ñu def États-Unis rek laa def États-Unis li mu demee rek laa dem demul trois fois deux fois nañ dem maa ngi moom trois fois waaw ndax benn bi boo xoolee defu fa sax deux jours ñibbi si waat kon loolu du dem quoi you know làmb la préparé nañ ko dem nañ fi États-Unis ñëw làmb ji amul ñu delluwaat États-Unis ñëw làmb ji amul you kon lépp ndogal suñu borom la di wax na yàlla suñu borom moom moo ko dogalee noonu dañ koy accepté dañ koy nangu mais daal lu ma la mën a xamal lu bari lu bëriwul làmb la ànd naag suñuy mbokk ñi waaj yàlla suñu borom nañu may ndam incha allah. amiin que le meilleur gagne rek ñun mën nañu wax lool mais tamit encore une fois ma waxaa si li nga xamante ni moom moo di euh, combat bi parce que dañu dégg démb euh, mu ni moom euh, da nga ko laaj partout di ko laaj di ko laaj di ko laaj lan moo war a laaj boobu da ko def sa nooy neex wala da nga yaakaar ni que yow yaa ko man non du question dama ko laaj laaj laaj non non làmb la ndax boo xoolee combat bi doon woon moom keneen la waroon a bëreel xëy na yàlla suñu borom moo wax nag maa moom dañu bëre ñu bëri ah Jachette loolu la quoi ndax boo xoolee fi muy wax ne ma ko laaj daa daw aw nii ma daw aw nii ñu daw daje ñu de kenn laajul foofu sa morom mais après ma ko déglu mu wax benn genre communication ne ma man ma ko dëkkaatee dina ma dóor mais ni ma dama doon ko dëkk dëkku ma ko woon dañoo tamponné après si laa ñëw estat eh, ami eh, amitié comme euh, kan ce que du site xaw ma kan ma ñëw dëkk ko boobu man maa ñëw dëgg. da ko dëgg mu dawal. non dama ko dëgg mu mer xam nga moom nu muy def rek <laughs> mu mer rek xam ne ni moom moom boo ko boo ko okkee rek da lay xuri. est ce que nekkoon ne aussi tamit li nga xamante ni moom moo di combat bi nekk na sa faveur euh, moom moo tax euh, parce que moom ci biir waxam démb nee na da nga ni ko même jour combat bi su ñëwut da ngay ñëw te yow da nga koy simple dafa mel ni am nga confiance. non du question confiance sax nit ki moom li nga liggéey rek ngay wax waaw moom moo mënoon a simple simpi bi dañ ko koy bàyyil moo tax ma ne ko boo ma simpul dinaa la simple waaw mais moom. kàllaama la même déggul déggul ndaayaan quoi moo tax. déggul ndaayaan kon déggul jàpp bi. déggul jàpp bi naa la. <laughs> lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo nekk sa ginnaaw di say supporter parce que kumple woon ni que làmb ji moment bi ñu toll bëri na coow bëri na euh, bëri na violence. waaw di wax nañ ñëw man moom samay supporter li ko dëggee jàmmagan si Kambaaw Fora Caaray Géej fukki penc ak ñaari you know waa Gorée ñëpp maa ngi leen di ñooñ ñooñu dañoo service ñun suñuy supporter duñ def n'importe qui non non dañuy ñëw sañca ba jekk mm-hmm. xañ parfum bu neex ñëw supporter seen mbër yàlla suñu borom may ñun daf ñu doxaat ndànk mm-hmm. non violence nañuy dox incha allah. làmb léegi dañu gis ne que lu lu bëri souvent si verdigu arbitre arbitre bi du moins lay lay jeexee euh, yéen seen combat naka ngeen ko prévoir est ce que tamit sénégalais yi nee nañ franchement sonn nañ ci li nga xamante ni moom moo di verdigu arbitre mm-hmm. yéen lu ngeen naan. mais nag làmb la rek euh, ñun moom mooy li ma la wax rek. ñun moom doonuñu ay xale yoo xam ne dañuy nekk fi nit non non dañuy am jëlam day am si kàttanu suñu borom incha allah yeah. ok ñu bàyyi la rek nga remercier ñi nga xamante ni waa maaw Cissé dafa doon nit koo xam ne maanaam jàmbaar la te borom baax la quoi ndax boo xoolee daj na ay coono si combat bi waaw koo xam ne yéen da ngeen a wax mu ne la xaar muy xale jox la nga dem naa la adversaire kon kooku fonk na lu muy liggéey fonku na tamit lu muy def mhm. di ko ñaanal yalla suñu borom defal ko jamm ba lim sumba nii yalla suñu borom defal ko si ndam te inshallah allah dina am ndam wa ma ngi o ñep bu mu limé dal damay jum waa caare géej fukki pencé ak ñaari ñep ma ngi leno malik Malick ma ngi lay o ñep malik Gakou sax ci lay na parce que deb kéro dang ko dang ko tudd rek guy gu daane la da nga manam da nga asif ki nga xamanteni mom moom moo ci mom loy wax ci non malik sama papa la wa am am moo ko booleeg Malick Gakou man am am booleeg Malick Gakou deret moo ko booleeg ah, non deret mënu kaa booleeg Malick ndax xamul tax Malick Gakou sama maam moo doon ko jox tànk Malick Gakou ñëwul añ bool bi duy beeku kon koo gënumaa yee si Malick Gakou sama papa doon ànd ak Malick Gakou di jëndal Malick gaaku leneen ak leneen mais loolu duñ ko wax si kon Malick Gakou sunu papa la am am booleeg maag moom politique wu maag moom da siy jàpp parce que nekkul tamit li nga dugg géejawaay xam nga booy dugg si kër am naa fa six combats yoo xam ne yëpp géejawaay laa ko bëri ji waa géejawaay laa ko bëri te day jàpp kon maa ngi nuyu ñëpp daa di leen rafetlu tamit seen émission bi nice na